asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yépp yenn mbokki lislaam yëpp yéen mbokki taalib yépp ñu ngi leen di nuyu di leen nuyu ci kàddu sëñ sëñ Seex Mbakke mi nga xam ne moo toogi jataayub sëñ Abdul moom it mu di leen nuyu ci kàddu sëñ Muntaxa ndax dañoo baaxoo waxtu woo xamee ne si bis bii ngeen doon ñi ma jiitu doon yëgle muy bis bi sëñ Abdul Xaadir gane àdduna fu jege sëñ Seex day dem ci sëñ Muntaxa jëli fa ndigal lépp lu mu ci wax nag moom fas képp lañ fas yéene def loola nag bam ci jëlee ndigal xamal na ko ne ko euh, nañ waaw bis bi de mënees na koo def waaye nag nañ ko defee ni ma ko daa waxee rek mooy ñu wattandiku jaxasoo bi wattandiku euh, jataay jataay xumb yi te fu ñuy toog fu ñu ñu wéy ci ndigalul lañ leen sant ba kenn du lor kenn te ñëpp dañ mën a jariñu loolu lañuy ñuy sëñ bi yéene kon nag ngeen xam ne màggal gi ñu ngi ko war a def ci ñaar fan ak ñaar bis bi moom la war a tollool waaye nag dana am soppiku waaye li ciy soppiku nag mooy lii ma leen wax nañ moytu uh, uh, mbooloo mu daje mi ci benn barab di mbooloo ak lépp loo xam ne si day indi eh, dox te yoroo liñ digle te eh, mooy li ñu sëñ bi digal ci jumaa ji rek yooyu yëpp ñu sàmmanteek moom bu ko defee nag eh, waaye nee na njàngum alxuraan moom ak ak ak ber ak ak luñ ci man ak jàngum xasayda moom luñ ci mën nañ ko def loolu kon nag moom lañ ne woon nañ leen ko jot li fu ab taali bi ne mu yëg ko ndax dafa jaaru ci bis bi jotee waxtu wi jot ñu fàttali leen bis bi nga xam ne ci la ñu yàlla may sëñ Abdul Xaadir Mbakke sëriñ bi it wax ca mu ci waxoon bis bu bu jotee jaadu na ci ñu fàttali leen ne la bis bi waxtu sàngam la muy ñaari fan ak ñaar ni kon nag yàlla nañ ci yàlla àggaleeg jàmm te yàlla nañu yàlla taw tawféexale ñu defee ko ni ko sëñ bi diglee te daje cee ngërëmul sëriñ tubaa ba liñ ci daawut lépp ñu mën ko cee amee bu ko defee nag ngeen xam ne moom mii nga xam ne moom la màggalal bis bi na koo xam ne. Eh, eh, wax dëgg yàlla ku ko mos fat gis rek daana la fàttali yàlla mm-hmm. waaw <coughs> ko mos seen jëmmam rek sa xel dana dem ci yàlla loolu nag li ko mooy dane woon mm, nocc rek ci istiqaamatu ne woon nocc it ci sunna eh, te te te mosu ci jóg benn yoon te wa bi anna l istiqaama nihaayatu salaahi wal karaama ni istixaamatu dafa jafe jafe jafe ba sëñ bi nee na xar baax ak baax ci boppam sax ci jub mooy mooy mooy mooy dayab xar baax mooy dayab mooy dayab baax ndax dafa jafe mu nag yàlla mayee na ko loolu kon nag ko yàlla nu yàlla taas ci barkeem képp koo xam ne ñëw na ci képp koo xam ne si ñëw na ci eh, bisam bi wala nga foo ci ne nga jàng fa la nga ko jàng yéene ko ko yàlla na ko ci yàlla jotale bu ko defee bu ci jotee rek ñun ñii yàlla mën nañoo faj suñuy aajo moo moo tax ñu ngi soññ njàngum kaamil mi fu waaye mën a ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di soññ ci njàngum alxuraan mi di leen soññ ci njàngum euh, salaatu ala nabi yi di leen soññ ci njàngum xasaayit bi ndax xasida yi sëñ bi lépp ngi ci mm-hmm. di leen soññ yit ci euh, jàkka ji nga xam ne bisu euh, bis ba daana am ñu fi daje di fi jàng alxuraan xasida moom it ñu ngi leen ci soññ bu ko defee nag buñ noppee ci loolu nañ ñaana ñaanalaale réew mi eh, li naj taasa asmata corona almustajidda wa tadahiyatiha <laughs> ndax kat eh, ku ci ne xam na ne eh, tënk na nit ñi kon nag yàlla nanu yàlla dimbali alxuraan ñaan mën na lu ne ñan sëriñ bi yii rek lañu ñu santoon ne kuy ñaan bu ko def wala takun mustahjilan wala taqul lam tustajib lii dahwati wala tamal yett yi bul yàkkamti booy ñaan bul euh, bul wax wuyuwuñ ma booba tey maa ngi ñaan waaye kenn wuyu bul yokkat suñ tubaa nee ne ñett yi la ñaan bañ wal takku fii saabitan na nga ci sax rek ndax ndax eh, loolu alxuraan da ko indi te daanaa digg sëñ bu xat di ko netti ba tey wa qaala muusa rabbana innaka aatayta firxawna wa mala'ahu siinatan wa amwalan fi lxayaati dunya rabbana li yadillu an sabilika rabbana natmis ala amwalihim washdud ala qulubihim falaa yuminu xata yarawu alalim xadu jiibat dahwatukuma fastaqima wala tatabihaanni sabila alladina la yaalamuun Moussa ak Haaruna ku ci dañoo daje ñaan yàlla ne ko Firxawn ak waa këram na nga far seen alal dëral seeni xol ndax xam naa ne gëm moom duñ ko def fig mbugal ñëwut seen kaw ba mu ko waxee sa borom dane nag xat ujiibat dahwatukuma wuyu naa leen nga xam ne ñaari yonente ñoo bokk di di bokk taxaw di ñaan Moussa daha wa haaroona ammana watta aminu min adduhaay Moussa ñaan na haaroona ni amin te amin ci ñaan la bokk waaye téewut ba leen yàlla nangulee ba ne nangu naa ñeen fukki at la ñu am soog soog arbaxiina sanatan la ñu am gis résultat bi kon kuy ñaan yàlla doo ko yàkkamti doo ko forcé waaye ñaan ko li nga bëgg te dogg ca ni ko sëñ bi bi xas bi xas min ba tamaam noonu la sëñ bi jàngale kon yàlla nu yàlla dimbale ñu am ak topp te yiwu bis bi yàlla na tasaaroo ci réew mi tasaaroo ci réew yi ba jàmm ak xéewal ak yusru ak tawfiix ni ko borom amee woon nga xam ne boo jàqee rek boo ko boo ko gisee daal di am faraju yàlla nan ko yàlla defal ci daraja am ndax yàlla mën na lu ne xasee farajun yaati bihi llaahu innahu lahu kulla yawmin fii xaliqati amul mbas lee yàlla daal ñuy indil wuñu njàqare ndax yàlla moom kulla yawmin huwa fi sanin bët bi set am na lu mu dencal ay ay ay jaamam wa kullu haamin wa antum bi xeyrin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi